mbooloo mi salaamaaleykum di leen nuyu seen présence man maa ngi tudd Djibril Ka dëkk Anne Maris di ñëw di répondre ci appelu président de la république muy cleaning day appel bi nag dépassé na parti politique dépassé na daayira dépassé na association appel national mu ñuy woo ci set setal ak li set setal ëmb yëpp set setal ci wàllu feebar dina tax ñu éviter ko dina tax ñu éviter lu bari tey nag appel bi suñu casquette politique yëpp dañ koy jël sànni ko fële appel citoyen la appel de citoyenneté ñu bëggoon ñëpp respecté ko Macky sàll boo koy suivre bu baax de ses projet la patrie avant le peuple loolu moom mooy askan bi la jiital avant les partis politiques sur ce plan nag dañ koy def chaque mois incha allah affaire bi du affaire bi nga xam dañ koy def tey rek arrêté chaque mois dañ ko nar a def pour wane ni affaire bi affaire de citoyenneté la mois prochain suñu maire Babacar Mbengue incha allah moom lañ koy parrainé le mois euh, bi si topp mois de mars Aliou Nguy Ndiaye tey jii boo leen gisee ñu daje booru buntu kër le ministre c'est le ministre de la république la ñu gën a soxla tey. que Ali Ndiaye le politicien pourquoi le ministre de la République boo leen xoolee élection yi si pa yi passé sincèrement doon nañu xalaat ni bal dina jóg fetal dina jóg paaka dina jóg mais dara donc ce sera l'occasion au mois de mars ñu félicité ko remercier ko ci taxawaayam bi mu am sur le plan national bu loolu weesoo nag nit ñi nga xam ne ñoo fi daje ay c'est personne de valeur kii jege ma ni il s'appelle Diakham moom moom mooy président de la commission religieuse jàkk ji li ñu fiy def yëpp construction yëpp moom moo ko diriger donc ay nit la yi nga xam ne dañuy investir pour leur pays pour leur nation ki nga xam ni nag tey ji moo ñu gunge si lii yëpp ba lii mun a réussir Boubacar Sagna la Bouba dafa nekk ki nga xam ni bañ fi nekkee ba tey dafay investir pour la population des Maristes donc lu mel nii bu amee c'est tout à fait normal ñu accompagner ko ndax li mu yàgg liggéey mu am résultat ban résultat la ñuy xaar moom mooy le prix bi nga xam ne moom la président de la république teg ñu gagné ko ce qu'on attend de tout ça nag moom mooy la reconnaissance de l'État tout simplement di rappeler que ni rek appel citoyen la dépassé na parti politique dépassé na daayira dépassé na association appel national la kon nañ leen gunge suñu président de la république ba atteindre suñu objectif wasalaam